blo blocus bi levé nañu ko mhm. personne ne comprend mhm. euh, on n'a aucune nouvelle de Ousmane Sonko mhm. yow tanewoo ñu ci information mi ngi biir këram ah ngi biir këram levé nañu blocus bi biñ ko blocus bi bi mu amee ku ne dégg na fi ay awakaam yu ne Ousmane Sonko dañ ko privé de ses droits mooy li nga wax fii léegi gis na ay camarades de parti yu ne dañ ko privé ay droit gis nañu sax ay alliés yu nekk à l'étranger jël parole dañ ko protéger ay dañ ko ba ñu ni dañuy saisir ay juridiction internationale n'est-ce pas ni levé nañu blocus bi Ousmane Sonko génnut hmm? da ko bañ ba porte parole am xaw ma chef de protocole am daal ni bu kenn ñëw seet si ko ku dee yow da doon jooy ni da bëgg a génn dañ maa bloqué tëj ma sama biir kër mënumaa sawi ñu ne la léegi man ngaa génn nga ni nga toog sa biir kër bu ma kenn seet si mais amul lu ko wund loolu ah, yëpp xaw ma lu ko wund euh, cette cette cette accalmie là man xaw ma euh, est-ce que ce n'est pas le fruit de négociation la levée du du du du, du euh, est-ce que amul ay mbir yu ñu nekk di jéem parce que fan yi yëpp ñu ngi doon wax wax waxu deuxième dialogue Pierre Atepa Goudiaby toog na fi mhm. moom nee na Macky Sall ak Ousmane Sonko ils doivent se parler mhm. am na beaucoup de bonne volonté yu jéem bien que les tentatives ont été fructueuses et infructueuses mhm. yow tane woo ñu foofu grand yow. da ngay am jàpp naa ni que négociation warut am na am ci application décision de justice bu dee état de droit lañ nekk. non loolu sur le principe laa wax. non non mais le principe. sur sur le principe mais mais ci dans la réalité ci ci dans la réalité je peux te dire que négociation amu fi. Macky Sall n'est pas dans des de négocier pour quoi que ce soit avec Ousmane Sonko c'est ça la vérité. Macky Sall aujourd'hui il y a pas de négociation je te le dis de ci sama à mon niveau d'information je suis formel il n'y a aucune négociation de quelque nature que ce soit entre Ousmane Sonko et Macky et le pouvoir le pouvoir n'est pas dans des décisions dans une logique de négocier quoi que ce soit sur l'application de justice c'est ça la vérité les gens nag peuvent sortir ce qu'ils veulent et faire dire ce qu'ils veulent mais tey li xew moo lu ñu mën a dut baaraam blocus levé nañ ko Ousmane Sonko ngi biir këram nanguwut a génn nee na bu ko kenn seet si jéem koo seeti yow nen la bul ñëw dañ ko privé ay droit am ni bul génn léegi nee nañ ko léegi police levé na levé na bi mu toog biir këram ni bu ma kenn seet si demut fenn mi ngi biir këram.